jërëjëf ana gan gi ni nga ko waxee Amadou kanaar Diop expert en réduction des risques et gestion des catastrophes mu nekkoon itam directeur adjoint bu protection civile bu Sénégal ñu ngi lay nuyu sëñ bi Diop am mbégte lool dalal la ci matinalu Rewmi FM tey. Euh, soxna si maa ngi leen di fay bu baax. Mhm. alors ñu tàmbalee waxtaan week euh, lakk gi ci marché yi marché Ocass bu Touba lakkati barki démb euh, mu jur ay dégâts yu bari du fi guléet yeneen marché itam ñu ngi lakk ana lu waral jëye yu mel ni bari lool ci marché yu Sénégal. Ah, jërëjëf soxna si ni ñu seetloo ne lakk yi ci marché yi ni mu demee nii ah, indi na jaaxle ci ñëpp. Hmm. na jaaxle ci ñi réew bi dina jaaxle ci commerçant yi ak citoyen yi ah, li nag du gulet hmm. déjà mille neuf cent deux mille dix huit ci septembre bi amoon na lakk gu bett boo xam ne ba dañ def conseil des ministres ba président bi jox ndigal premier ministre bi nakoon na def conseil interministériel léegi ñu xoolaat nu ñuy defarewaat marché yi ba lii fi am du fi amaat et loola nag dafa def nañ conseil de ministres boobu pour loolu mais bu ñu xoolee ne déjà 1997 conseil des ministres amoon na juuti yooyu amoon na ci lakk yi marché yi conseil des ministres deuxième 1997 bi nag dafa juróon ca at ci tegu ca janvier ba maanaam ci waxtu weer wi ñu nekk rek daanaka. Mm-hmm. ñu am benn arrêté bu ñu def boo xam ne ministère de l' intérieur moo ko signé ministère du commerce ak ministère urbanisme ñu bind ci ay matuwaay yu wër ñu ne lii nag dañ koy topp ba lakk gu mel nii duutu fi am loola 98 la maanaam am na daanaka ëpp na fanweeri at booba bu ñu xoolee rek juróomi at yi weesu rek juróom-ñaar fukki lu ëpp juróom-ñaar fukki lakk ci marché yi nemmeeku dañ ko. Mhm. lu tax loolu ndax arrêté boobu ñu tënkoon. wax ca lañ ca war a wax la marché war a mel ak nañu wax nekk benn marché da ko respecté wul booba ba léegi bu ñu hmm. jàppee rek ñaari marché ci euh, bu Touba bi ak bu Ndakaar hmm. xoolañ ak Pàkk Lambaay xoolañ na Pàkk Lambaay lakk na ñetti yoon hmm. ci juróomi at yi mooy deux mille dix neuf octobre deux mille vingt ak sept deux vingt deux bu ñu xoolee marché Ocass Touba ñeenti yoon lakk na ko ci juróomi at yi Hmm. ñeenti yoon donc dañuy jàpp daanaka at mu nekk mu lakk parce que lakk na 11 juillet 2018 lakk 12 mars 2019 lakk 17 novembre 2020 lakk bërki démb 28 janvier 2023. Hmm. mais loolu dafa dafa xaw a doy waar loolu mooy daanaka lajj nañ ci politique gu fexe ba marché yi du lakk loolu lay wund ndax marché yi booba ñu jëlee disposition yooyu ba léegi ma ngi gën a lakk lu waral loolu nag daan ci justement ñu ñëw ci lu waral lakk yi dafa mel ni Pàcc Lambaay ak euh, Okas ñoo xaw bokk feebar ndax bi ñetti yoon ci at mi bee ñeenti yoon ci juróomi at ñetti yoon ci juróomi at euh, dafa mel ni ñoo ñoo xaw a bokk jàngoro ana luy waral lakk yooyu di am ci marché yi. li waral lakk yi mooy lañ tënkoon ci arrêté boobu ma wax ci quatre vingt dix euh, quatre vingt dix huit lañ ci tënkoon lañu deful dañuy bàyyi ba lakk yi am. nit ñi ñëw politiciens yi ñëw commerçants ñu constaté ñu ne lii métt na lii dut fi am te lay mujj euh, wax ci wax après France daal di xëteen euh, parce que euh, arrêté bi lam mu waxoon dane marché dañ ko war a organiser buñ ko organiser mu am ay yoon yoon yoo xam ne ni nit fa la jaar kenn du fa tef taabal yoon yoo xam ni oto mën na faa dugg ba biir wàcce marchandise gënnaat ñu ne courant bi dañ ko war a ku nekk dafa war a indi compteur boppam ci cantine bu nekk. Mm. mais cantine warul di jël benn cantine jël fukki compteur euh, fukki euh, jël benn compteur branché ci fukki cantine ña koy branché it du ñu ay spécialiste du ñu waa Sénélec ñu courant da ngay gis ko bëgg ci koñ bi rek wala ku taxawoo tur wi sama fiilam nga ñëw na ko defaral ma fii. Euh, gis nañ ne ni ñuy dajalee marchandise bi niñ koy niñ koy stocké niñ koy dajalee jaarul yoon mm. dañ koy marchandise bi yi war a ànd àndul nañ koy def ci cantine bi si jaarul yoon dana dem ba kenn du fa mën a jaar mm-hmm. te marchandise bi euh, ci seen biir waruñ jaxasoo noonu xool nañ surtout nag ci installation électrique bi ni ma ko waxee ndax li ëpp ci euh, marché yi lakk ci foofu lay jógee installation électrique bi nee naa benn cantine lay jël charge euh, branché fukki cantine da ngay gis fiil yoo xam ni ma ngay lang fiil ya yow jaar sax yañu war a utiliser duñ ko utiliser ndax fil yi nga xam ne moo yu wér yi yu baax yi bu dee jaar mètre maanaam euh, téeméer dañuy jël fil yoo xam ni beneen réew koy defar yoo xam ni baaxul yoo xam ni mètre ñaar fukk ak juróom lay def te fil yooyu yëpp lii dafa bële ak xonk ñoo niroo donc pour bëgg bëgg lu yomb lu ci def fil yi ci war duñ ko ci def. Hmm. beneen bi ci marché yooyu amu ci lenn luy wane ne day def bu euh, safara yi génn dana ko mën a wane. lenn luy wan ne bu safara génnee bu ko wanee daañu ko am jumtuwaay yu ñu ko mën a fayee. Hmm. loolu amu ci marché yi. beneen bi ci euh, texte boobu dafa waxoon ne euh, ci marché yi nañ fa jël ñoo xam ne nii seen xam-xam dafa màcc ci lakk ñu koy garde marché bu nekk war na ci am au ñetti nit yu fay nekk en permanence di ko garder ba di mën a gàttandu euh, safara bi te bu ñëwee bu tàmbalee rek ñu mën koo fay loolu aussi benn defu ko. di ci gën a nag posé problème mooy sapeur yi non seulement amuñu fuñ jaar ndax bedd yëpp dañ ko dañ ko euh, euh, dañ faa def ay marchandises mais amul li ñuy wax bouche d'incendie te ñuy tudd léegi poteau d'incendie yoo hmm. xam ne ni ku ñu ñëwee ba seen ndox jeex fa la ñuy war a mën a ndox hmm. loolu nag am na euh, état bi wax na ci nekk demoon na ba ay jamono sax ñu ne ci fond de concours bi na préfet bi imposé ci maire yi ñu def ci au ñaari pot d'essence ci marché bu nekk bala ñuy signé budget bi. Mhm. mais loolu ba tey toppatoo wuñ ko. Mhm. ba boo gisee ne marché yi daanaka amatul benn bouche d'essence. Mhm. Euh, daaw ak ren rek lañ gis ne Kaolack ngeen gën a ak Louga ñu commencé wut ak pot d'essence mais yi ki des dara defuñu ko. loolu nag bu xewee noonu mais lu tax jëyee du am moo jaaxal nit ñi. te bu amee aussi lu tax du yokk ba du yàqu lu bari aussi day jaaxal nit jaadu na kon ni yëf yi demee alors euh, état daal di taxawal euh, Promogem projet boo xam ni dafa yeesal ak euh, méngaleeg jamono marché yi est-ce que boobu projet bu anto jéye yi dana mën a wàññeeku donte xëy na mënta jeex tàkk. Oh, bu anto jéye mën na wàññeeku mais na muy anto mooy xool nañ ne bañ ko tàmbaleeg léegi résultat bi taxagu ko gis parce que gisuñu mu wàññi lakk yi hmm. projet boobu aussi dañu war a xool ne du ci tabax rek. parce que tabax contenant la. bu ma tabaxee rek aussi te nit ñi euh, euh, tàggatuñ leen sensibiliser wuñ leen jaarale wuñ leen ci yoon lay indi safara bi ci du ci mairie yi ak bâtiment yi mais ñoom la. donc loolu dañ cee war a projet bi dañ cee war a waxtaan ak acteurs yëpp buñ ko daataan tëgg bu weesuwul nag la mu ci tëggee dañ dajaat acteurs yi xool lu ci tëgg nan lañ koy joyantee ba résultat yi ñu ci bëgg am am ko. Hmm. naam projet bu baax la mais lu mat tëggaat la seetaat ko. bu mu gën a mën jur njëriñ. Mm-hmm. ci euh, commerçant yi ak euh, citoyen yi. Mm-hmm. ñu tàggat la ngay officier supérieur de formation spécialisé wu ci wàllu sapeur pompier intervention yi yenn saay dañ ciy joxoñ yooyee sapeur pompier dañoo yéex wala lañ waroon def defuñu ko moo tax la yàqu bari loo ñuy indil comme tont ak leeral ci xëy na luy waral yi ñuy joxoñ yenn saay loolu am solo la c'est-à-dire que ñaare bu lakk gi amee. Mm. nit ñi amaguñu réflexe aussitôt woo sapeur dañuy jéem faj ba pare. Hmm. soo ko woote. buñ tolee doo ko woote waaw soo ko woote woote bi man naa yeex loolu benn la. Hmm. ñaareel bi sapeur yi mën nañoo ñëw sax ba jub lakk gi mais du ñu am fuñ jaar. xat. waaw marché bi fa mu fa mu fa mu yemoon lu war a mat trois cent à cinq cent mètres lekkaat na ko loo xam ne ay bagages ak ay taabal ay cantine lañ fay def. Hmm. kër yi ko wër. defar nañ seen i garage ko boole ko ci marché bi. donc fu sapeur yi dugg ba agsi ci fa lakk nga am. day daal di am problème yu wër a wér a wér mm-hmm. ci organisation sapeur bu guddee buñ leen wootee bu dee bëccëg une minute la ñu am pour war a génn camp bi bu dee mm-hmm. guddi ñaari minute la ñu war a am pour war a génn camp bi mais génn camp bi taxut ak si fa lakk nekk ndax la euh, la wër marché bi ak ni mu débordé mm-hmm. beneen bi ñu wax moyens yi yàlla xam na ne euh, maanaam ñeenti at yi li sapeur am ci moyen mosu ko xalaat waaw moyens yi moom. yokk na sax moyen dana doy mais yokk na bu baax a baax a baax a baax a baax. Ah. nit ñi yokk na matériel bi yokk na tàggat bi ñu koy def mais nit ñi seen bopp nag ñu war a euh, wallu ci. Hmm. ñooñu la ñoo war a defaraat seen toogaay ñoom la ñu war a tàggataat. Hmm. Euh, sensibiliser waat leen ba ñu mën a euh, xam lan lañuy def. Hmm. balaa sàppari agsi mm. mbiram état ku ne xam na ne yenn saa yi du gaaw lool euh, te jafe-jafe baa ngi fii jéye yaa ngi am yàqu-yàqu yi di bari euh, fi saa si tembe lan la ñu mën a def ngir xëy na wàññi ngaañte yi ci lakk yi am ci marché yi ci saa si tembe nañ defaat toute organisation ci marché bu wutal ko responsable ak ay conseil sécurité wu ñu fay garder mais euh, addina day dox dox na ba jamono ji am nañ moyen yoo xam ne mën nañ ko utiliser mm. ba nga xam ne lii fi am dootu fi am moyens yooyu lan la am na ay euh, matériel bu ñu ay Thaïlande génne boo xam ne nii dañ naan buul buul maanaam lu maanaam mën na bal la. Hmm. boo xam ne da nga koy teg ci sa boutique wala ci sa magasin. Euh, lu fa euh, étincelle wala lu fay takk tàkk bu génnee. Hmm. day koy remarqué ba pare explosé fay loola. bu ko fayee ba pare nag day am benn couche bu muy defaat ci biir yiir yiir loolu ba beneen safara du mën a agsi ci moom. Hmm. Euh, loolu nag bu fekkonte ne boutique yëpp am nañ ko magasin yëpp am nañ ko ci marché yi jëye yu mel nii dootu am. ndax lu yomb la euh, lu wér la. est-ce que loolu euh, yomb na li ngay wax noonu yomb naa am. yomb na am yomb naa am te disponible na. Hmm. il faut que état bi nangu ko ak commerçant yi pour loolu taxaw te loola laajul formation laajul maintenance. Hmm. laajul xam-xam laajul dara bal boo jël teg ko. ci sa sa magasin la wala ci sa boutique buy safara am bu bu dee guddeeg bëccëg boo fa boo fa nekkul buy safara bi tàkk moom moo koy remarqué explosé hmm. bu explosé fay hmm. loolu nag volonté politique la c'est la seule solution actuellement loolu rek moo mën a lijjanti bi en attendant ñuy xoolaat hmm. nan la ñuy réorganiser marché yi mais ci urgence loolu rek mooy mbir mi. Hmm. moo ko mën a régler. waaw ñu gis ne nag euh, sëñ bi Diop càggante gi moom dafa mel ni lu wër ndax euh, état xam na lii euh, tegagu ko comme lu war ci kaw commerçant yeeg ñëpp ñu yor yoo xam ne xeetu bërëb yooyu la ay boutique ak ñoom seen askan wi itam mel ni ñuy farantal yenn saay ay ngaañte yu ñuy gis saa su ne ah, ci capital comme ci biir réew mi loo xam ne bis bu nee teel jëye am te ñëpp ciy gëmm seen bët yow mi yëngu ci wàllu prévention lan nga jàpp ni tey moom la ñu war a def état comme askan wi ngir vraiment. mucc ci yenn yoo xam ne bu amee musiba lay doon ci ñëpp. damay wax ne loolu wax nga dëgg soxna si prévention mënut a ñàkk mais prévention dañu war a tàggate lu yàgg lay doon. Hmm. Euh, mas naa ko wax ci benn rajo maanaam dañu war a topp ci case puti di wan nit ñi. Hmm. nan la ñuy moytoo ca xale yi tuuti. yar leen ci ñu commencé wan nit loolu xam nan la ñuy moytoo loolu lu am solo la ñeneen ñi nga xam ne nag ay mag jëmm lañu. Hmm. dañ leen di ci loolu. dañ leen ci tarbiya ci nan lañu war a mën a euh, sàmme seen bopp sàmm seen alal sàmm seen dëkkuwaay sàmm ñi ñuy dendal dëkkuwaay ak matériel u ñeneen ñi ñu dool parce que euh, mënut a yem ci yow rek mhm. loolu nag sàmm ni aw doxin la aw aw tàggat la boo xam ne day nekk ci biir nga koy doxe di ko xam ba di moytu prévention boobu nag moom manqué ci réew mi mhm. ndax réew mi amatul éducation civique ak morale mhm. réew mi ñi daan tarbiya tarbiyatuñu ña daan yar yaratuñu ñëpp dañoo mel ne rek euh, euh, na ma yàlla jéggal ay xari kurkur rek yuy dem di def lu la neex waay def lu neex waay wax lool nag bu amee ci réew rek te taxawuñu li jëntikuwaat lool lool rek ci musiba yu mel nii rek lañuy dëkk ci ci fu nekk te am na ci wet gu nekk kenn ku war a defe na rek war ngaa wut war ngaa euh, fexe ba moytu yenn yi sa kër war wut jumtuwaay yoo xam ne bu amee nga mën caa taxaw dafa dañ ne kenn waru ko def dafa ne loolu loo wax mën nañu ne tubaab yee ko war a moom ak loolu te nañ war ñoo dépensé loolu. Hmm. kon ci kër yi am na ay kaaraange yoo xam ne nit ki war na ko wutal boppam xeetu kaaraange. mais euh, euh, démb rek démb ci sama wet fii ci Thiès am na ku compteur am doon tàkk. Hmm. mais dañoo yónnee daw ba ci sama kër parce que xam nañ ne man am naa ay extincteur. Hmm. ci sama kër mais extincteur war naa am ci kër ku nekk. loo xam ne bu amee kii nga ko mën a fay avant loolu mais di daw di wuti walla te doo ci. lu xew ñu woo pompier. ñu ne pompier loolu aussi dafa xaw ne dafa am lu ñu teg noo xam ne li ñuy wax ne premier témoin ki njëkk a fekkee. Hmm. dafa am taxawaay bu mu war a taxawee. Hmm. bu ko taxawee ñaareel du weesu foofu du jar sax pompier di ñëw. moom la wax premier secours. mooy premier secours yi. Hmm. loolu nag ñëpp la war loolu nag euh, vraiment lu ñu waroon taxaw la léegi ñëpp jugaat ci pour tàggat ci bi. même ñi politique yi bu ñuy waxtaan seen campagne politique ñu war ci waxtaan. danaa ci wax lu am solo. am na benn association bu ñu tudd wattu wallu hmm. mi ngi ci département yu bari actuellement hmm. dama dañ ma jëloon comme mooy waxtaan ñu mu ne leen léegi li ñuy def dañuy programmer par exemple bu dee feu de brousse yi ñu def ko Linguère hmm. ñu dajale ñëpp Linguère tàggat bu dee feu village yi ñu dajale leen région de Kaffrine tàggat leen bu dee inondation yi ñu dajale leen Touba wala Kër Massar tàgg tàggat leen bu dee foudre bi ñu dajale leen Thiès mais association boobu ñu ngi ci Facebook ñu ngi bi ñu ngi hmm. waxtaan bi lépp. Hmm. mais programme boobu déroulé nañ ko wut nañ ku leen ci dimbali ba taay pour ñu def ko. amuñu ko ministère yi yëpp amul. donc te ñoom. moom kay càggante gi ci kaw la commencé loolu moom. ca hmm. voilà ca kaw la commencé. il faut que nag loolu. ñu xoolaat loolu lépp nag jàpp ci. ñoom lii ñuy def association boobu ni mu tudd wattu wallu. ñu xool nan la ñuy wattoo ak nan la ñuy walloo balaa keneen di ñëw. mais loolu bu ñu ko defee ci ñëpp tàggataat ñëpp maanaam tarbiyewaat leen ci ku ci nekk risque fa nekk. Hmm. mais loolu mën naa indi solution mais loolu il faut que état bi jàpp ci il faut que maire yi ak président conseil ak ñëpp ñu fi war cee jàpp pour loolu man a law ci réew mi yëpp. Hmm. ñuy wattu. di wallu. ana dinañu baal waxtu wi xoj nañu waaye ñu wax tuuti ci accident yi état jëloon na ay mesures donte déggoogu ci ba tey ak transporteurs yi ñu jukki ci benn ndax temps bi may ñu ñu wax ci yeneen yi mais bi nga xam ni moo aaye daw guddi jàpp nga ni mën naa indi saafara ci jéey accident yi euh, zéro heure cinq heures du matin. waaw mën naa indi saafara certes mais taxul ñu yaakaar sax parce que li ci war mooy waxtaane. Hmm. parce que oto war nañoo mën a daw waxtu wu nekk mais bu ñu dee ba cinq heures du matin aussi te amul ay mesures d'accompagnement. Hmm. mais six heures dix heures la accident yi day daal bari. parce que nit ñi il faut que ñu xoolaat leen tàggataat ñiy dawal oto yi tàggataat euh, ñi nekk ci tali bi maanaam force de défense ak sécurité yi. Hmm. xoolaat ñi yorewaat ñi xoolaat ni oto yi war a nekk ci yoon loolu bu ñu ko defee mën nañu daw guddi di daw bëccëg parce que daw guddi bi c'est vrai que euh, amul ci fenn foo xam ne ci transport public bi. war ngaa mën na jóg dix heures ci guddi. Mhm. wala onze heures ci guddi di voyager dem feneen amu mhm. ci. parce que tali am na te fooy mënti dem amu ci fenn Sénégal fooy daw huit heures de temps te doo mhm. mais balaa quatorze heures fi ak nga loolu amatul vraiment amul raison bu tax nit ñi daw guddi. mais nag tere systématiquement daw guddi bi aussi te yaroon nit ñi. defaloon leen. doo am solution bu ci bëgg. Mm-hmm. te lépp dañ ko war di waxtaane ak acteurs yi ba ñu mm-hmm. mucc. ba déggoo ci jërëjëf euh, Amadou kanaar Diop amoon nañu mbégte lool dalal la ci matinalu réew mi FM tey xëy na am na yeneen ponk sax yuñ gënoon a mën a jukki waaye nag waxtu wi moo ñu xoj yoon yemul ci benn ñu ngi lay gërëm en tout cas bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf. jërëjëf